te loolu tamit day wane ne par rapport à la chose euh, publique tey jeunes yi am nañu am nañu si euh, euh, xel daal ñu ngi si wane seen bopp wane ne bëggatuñu dara ñu def ko si dëkk bi te seen loxo du si dugg waaw loolu moom réussite bu am solo la daal waaw. jàngat bi ma si am mooy tey loolu day wane rek ne xale yi yaakaar la espoir bu ñu am si moom lan nax moo suscité espoir bi. peut-être tey le taux de chômage yegg na benn euh, niveau boo xam presque boo xoolee tey jeunes yi quatre yoo gis ñaar wala kenn moo siy liggéey te am volonté jang nañu euh bo xolé tay le niveau euh, intellectuel bi am Sénégal don na niveau bo xamné vraiment ñëpp dañ ko rafetlu ñu intelligence euh, pareil euh da ngay xol né xalé yi lepp lo xamné dañu ci nekk ñu ci démé engouement mais le seul hic qu'il y a moy wut liggéey doon na lu difficile si ñoom donc loolu day doon loo xam ne mën na doon euh, loo xam ne mën nga xalaat ne tey lépp loo xam ne da leen di suicider espoir dinañ si ne dara. Euh, question boobu nag bala ma siy tontu euh, dama bëggoon a laaj dal man sama bopp que ne est-ce que tey fait divers war na mën a mobiliser Sénégal à ce niveau tey problème yu bëri dañoo takk Sénégal man ma xalaatoon ne lii tey du priorité Sénégal priorité Sénégal mooy nan nañuy def ba renforcer les sociétés ba nga xam ne tey dinañu dooleel ndaw yi bu baax a baax a si côté liggéey ñu mën leen jël ñu liggéey fexe aussi tamit si côté éducation fexe aussi tamit renforcer éducation de telle sorte que formation bi dina baax donc euh, léegi pour ñëw nax si sa question boobu euh, day neex a tontu soo déggee li la jëkk indil man dama xalaat ne justice loi dañ ko def pour euh, une harmonie sociale loi bo xamné dafa ñëw pour féewale population bi dama gis né lolu baxul té le droit a été créé pour que les gens puissent vivre dans une harmonie réelle tay juge soy wo nit damay défé né day am ben intérêt bo xamné suscité pour nga wo ko parce que day yomb lool tay nga doon ab sénégalais di dox ñu wo ñu bëgg la wo tay devant le euh, devant le prétoire alors que yow la ñu la fay woowee yow gis nga ne euh, teguñu ko si yoon yoon daf fi war a nekkal ñëpp mu doon loo xam ne yow suñu la siy woo da ngay gis ne da am intéret wuy ji parce que bés boo yeggee xam nga ne yoon ba ñu war a teg dafa doon loo xam ne euh, euh, yow moom ngay xaar si dëkk bi man nax bokk naa si sénégalais yi nga xam ne dama gis ne Ousmane Sonko bañ a dem wuy ji du révolte du lenn dafa bëgg moom droit wam ñu respecté ko chaque citoyen nag boo ba gis ne yow say yelleef dañu koy jot na nga taxaw xol nan nga war mëna mën ba fexé ne tok tay xalaat dañu fay yoon ñu def ko ci yoon képp dégg sénégalais bu ko dégg dina yoon la ñëpp dañu xam aussi tamit euh, pour ci réponse comme comme aussi tamit dafa am ko par rapport à une expérience.

yo ñi nga xalaat ne tey ñoo ko yoon xalaat ne ñoom yoon nañuy doxal te moom mu gis ne doxaluñu yoon moom nee nañu dinañ ko woo mais nee na moom suñ ko woowee di wuy ji donc damay respecté moom position boobu xool ñi mu yaakaar tey muy ndawu Sénégal bés bu demee wuy jiwul lan moo ko siy fekk loolu moom position la boo xam ne dama ko koy respectel parce que tamit bu doon dafa gis ne dëkk bi yoon ñu ngi koy doxal na mu war a doxee bu jot dara desul lu dul wuy ji bu demul wuy ji defe naa ne ndaw yi du ñu ànd ak moom di ko jàppale si loolu man loolu mooy sama position quoi je respecte bien tey position bi nga xam ne moom la taxawee. coole bari na fit na ngi bëgg am nañ jël mbir mi ñu wékk si yàlla ku ne xam na ëllëg di nga wér sa borom ñu ji ma xool nu mu sedd rek moo gën lii quoi na baaxul. Adji Sarr Sonko Adji Sarr na xool ëllëg lu ma a sédd la. te am na loo xam ne bu ko def mu ngi bëgg a yëfin am na loo xam ne mu ngi koy bëgg a def mais yoo xam ne rafetul jekkul ñun ay ay sénégalais lañ nañ xool nu mu rafetee rek ñun ñëpp tey jii mu defe ko noonu quoi man moom laa gis sama xalaat bokk. pour bu la ooyee demal rek dañ la oo demal nga jox respect bi nga dem nga uy leen ba xam loo fay jëlee lépp dañ koy waxtaanee te ah man loolu laa gis sama xalaat waaw. dañu att rek dañ la oo boo demee waxal li xam ne moo nekk ku ne wax rek ku ne kaay wax rek dañu att rek kenn bañ a violer bi nañu att rek ñu takk ci yoon rek att moom bu soobee yàlla ni mu demee noonu la ñëwaatee si kantoon yàlla man li ma gis bokk waaw Ousmane Sokko yàlla dimbali nekk am na mbooloo am na mbooloo am na mbooloo mu takku ma ne si ginnaawam nañ bàyyi violence bi ñu jàpp ku ne jàpp rek téew bàyyi quoi lépp mën naa baax incha allah mais nañ mbooloo rek doon benn ba ret bañ a tuuru coow bañ a am dara bañ a ha. xew waaw.